ارجو ستنا بذة لله مع الكتاب والرسول الله ارجو ستنا بذة لله مع الكتاب والرسول الله سميتها جالبة المراخب fi àjjil ka àjjil raxibi bokki jullit yi bokki taalibe yi mbokk yi jàkkaarloog ñun duñu seetaan ndigal bàyyi ko waat na ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér waat si ci sëriñ bu Bousso moom sëriñ Abdul bu Bousso mi nga xamante ni bii ku ne xam ne taxawaayam ca Touba Mbambilor bis bi nga xam ne bisub sant sëriñ Touba la sub delloo njukkal sëriñ Touba la tam koy amal at mu jot te Mbambi ca Mbambilor bis boobu nag bokk yi moo dellusiwaat war a doon kañ. le 31 décembre incha allahu rabbi bis boobu nag ren jii bi mu demee ci Serigne Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa laaj ko ci ndigal ba mu jox ko ko mu waxtaan ceeg mbooleem kilifam yi nga xam ne ñoom la ko seqal yëpp nag daa dellusiwaat nag ci sëriñam di xaritam di sëriñ Abdul Karim borom makaarimul axlaax ku ne xam ne ne bis ba ren jii moom lañ ko tuddee moom lañ ko dara jaalee waaye nag bis ba dañ ci rendre hommage kilifa yi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko woon. la ko tàmbalee ci sëriñ Mamoor moom Cheikh Mamadul Fadal ak ñam ko bokkal ñëpp bokk yi nga xam ne ñooy jël kàddu danañ ci ñëw waaye nag bis boobu ku ne xam na ne sëñ Mamoor Jatara am na ab cër ci Mbàkke Xewar te ku ne xam ne ne sëriñ Mor Soxna moo doon taawu Maam Jaara mi nga xamante ni moo doon magi Seexuna Ahmadul Xadim loolu moo tax bis boobu nag danañ ci darajaal nag danañ ci darajaale nag sëriñ moor Soxna di ko ca fàttaliku nag ni nga xamante ne bii nooñu lañu fa bis bi tuddee ko sëriñ Abdul Karim borom makaarimul axlaax mu am ci nag taxawaay bu ràññiku moom sëriñ Abdul Karim kon bokk yi nga xam ne ñoo dëkke Mbambilor ñi dëkke Ndakaaru ñi dëkke Thiès ñi dëkke Mboro ñi dëkk tund woo bépp nañ xam ne ñi ngi bëgg am gan gan gu ñuy bëgg am borom makaarimul axlaax ka nga xam ne way juróom wu tedd wa Cheikh Mahamadul Fadal moo fa defoon toolub sëriñ Tuubaa bu mag boobee waa soowu jant gépp di àndandoo di wuji Mbambilor bis boobu nag le 31 décembre lay doon moom la ñuy waajal fii ci kër sëriñ Abdou Karim Makarimul Akhlaq fas yéene yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ Mbacke Seck mi nga xam ne mooy représentant xalif général des mourides ca Touba Mbambilor mu woote su noppee danañ ko jox sëriñ sëriñ Sayer Seck mi wax ci turu sëriñ Mamor su noppee nag ñu jox ko sëriñ Alaaji mi nga xam ne mooy wax ci turu comité d'organisation bi kon ñun ñëpp ñu maa déglu sëriñ Mbacke Seck ñu ngi leen di nuyu ci di leen siyaare si ni ko sëñ bi waxee rek ñoo jox ndigal sëñ Maamoor mu taxawal bis mu daan taxawal ci Bambilor ah ni mu ko waxee itam noo nga ci kër sëñ Abdou Karim mu am si mbégte nu di ko séenu dana ko yàlla defal wér ba man saa teew bu ca teewutit ndigalam ak kàddoom ak yëpp joxe na ko am nan ko ci kon noo ngi sant yàlla bu baax ah di ci woo nag ñëpp nag di ci woo bépp koo xam ne ki yaa ngi dëkk Bambilor ak li ko wër di si woo comité commune commune Bambilor bépp bokk Tëngéej yëpp bokk Dakaaru yëpp bokk tubaa yëpp noo ngi leen di si woo. bis bi nag day bis boo xam ne bii sëñ Maamoor la siy liggéeyal Serigne Touba di si wane Serigne Touba ni mu mel Serigne tubaa niñ ko war a taxawoo ba koy tàmbali si Bambilor boobaa woote naag léegi waaye ba mu ko tàmbalee léegi at mu jot mu yokk at mu jot. xeewal yi yokk al mu jot taali bi yokku kon sëñ Maam Mor yow mi nga xam ne yaa tànn bis tànnal na ko di ko wootee ci Bambilor mi ngi ñaan yàlla sama borom ba doole guddoo soo fan doole sa barke doole sa njaboot barke def si doole si xeewal ñu ngi lay sant nag baax noonu waa Bambilor ak li ko wër ndax taalibe amul lu may ndigal sëñ bi am na ndigal sëñ bi ci lu wér mu taxaa moo jàpp sa bopp na dénk naa leen Maam mi la nu dénkoo la boobaak léegi itam la ko jiitu yëpp liggéeyal sëñ Touba jàpp ñëpp ànd ak ñëpp moom nga fa nekke woon. bu ndigal sox ko bu ñëwee jëfe rek moo cay daldi des ndigal nag moom caabi la bu yéesee du ubbi bu e, bu ëppee du ubbi kon nag ñu wéyee ca ndigal la rek nekk ci e, li li ñu ciy wax nag mooy di woo ñëpp bàyyiwunu kenn tund Bambilor gépp tund Ndakaaru gépp tund Tëngéej gépp bàyyiwunu kenn di ñaanalaat sëriñ bu Boussa moom mi nga xamante ne nii moo yor initiative fu yëkkati 31 decembre bii nekk 13e édition macha allah mu ko yëkkati ci Bambilor bii nag dafa exceptionnel monsieur le maire ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax daa nga def ci bës bi lool waaye nag rawatina bés bi nga xamante ne dañ ko dara jaale sëñ Abdou Karim Mbacke ah mu war teew ci jataay ba kon alhamdulilahi rabi alamin li nga fay def moom alhamdulilah ñun ñëpp sant nañ ci bu baax a baax a baax am nañ ca yëg-yëg. bi weesu ak bii di ñëw ak bi kon ñu ngi lay ñaanal suñu borom bi yooyofal yan bi te dëgëral taxawaay bi loolu kat cantuk maam moor la mu jëm ci yow dafa nekk ne nag koo ne nu ma lay def rek ni mu la def a tax te gis nañ sa taxawaay macha allah ci diggante bés yi nga xamee moom maam moor dina ko woote sa diggante sa kóllëre ak moom kon macha allah ñu ngi leen di woo ñun ñëpp bàyyiwunu kenn di gërëm ñëpp nag cat ba cat bàyyi bàyyiwunu kenn di ñaanal ñëpp jàmm di wax Baye Mbacke Seck xalif général ah, moo ko moo ñu ko jox teg ci loxo mu nekk représentant Serigne Touba ca Bambilor kon Baye Mbacke ñu ngi lay gërëm bu baax di la ñaanal yàlla yow suñu borom bi woyofal sa yan te dëgëral sa taxawaay. lii day mënuñu koo ñàkk yëkkati ci biir jataay bi dama am nag cassette boo xam ne dama koy tourner toujours saa su ne di wax ne Serigne Mamour bu sa def noo mënal lu nu mënalul suñu bopp bu sa yàlla na suñu borom bi guddal sa fan te dëgëral sa taxawaay ah suñuy doom yépp ni ma koy waxee rek koo ci jox kaamil mu jàng koo ci jox xasida mu jàng ko nit xam na la ko war te jëfee ko kon ndokk bu so ba nga xamee loola war nga nekk ko ñun danga nga nu ko yombalal lool te taxawuñu ci macha allah loolu moom ñaan googu moo tax toujours suñu ñaan du jóg ci yow saa su ne ñu ngi lay ñaanal suñu borom bi guddal saw fan te sa taxawaay suñu borom bi sàmmala la sutural la bàyyi la ci kanamu njaboot gi barke Cheikhul Khadim lii moom mënuñu koo ñàkk wax di nag gërëm ñépp nag gërëm daayira Jaaribatul Maraqib gépp bàyyi ñu kenn. ren nag bés bi yaatu lool. ñoo ko daan defee ci kër Serigne Touba ga waaye bés bi màgg lool ba xajatu fa ñu war koo génne ca bayal ba nga xam ne bayalub Serigne Fallou ca Mbambilor ci teewaayu Serigne Abdou Karim Mbacke Makarimal Akhlaq bés bi nag ren incha allahu rabbi moom Serigne Abdou Karim moom lañ ko dara jaale di ci rendre hommage Serigne Serigne Serigne Mamor Mbacke Fallilou ak Thierno Djibi Ousmane Ba ak Baye Ndiaga Fall mi nga xam ne moo fa nekk nekkaloon Serigne Touba di ci rendre hommage tamit góor mag Diop di mag ci l'honorable député maire Ndiagne Diop di ci rendre hommage Serigne Abdoulahi Mbacke yàllaay buur di ci rendre hommage Adja Mariatu Ngom Bambilor ak Baye Kounta Diop mi nga xam ne Bambilor la dëkkoon nekkoon ci kër Serigne Touba ga nekkoon fa liggéey bu rafet. bës bi nag ñu ngi ko déjee Serigne moor Soxna Mbacke nekk premier xalif Serigne Mamor jaara borom saam kon nag bés baa ngoog ñu ngi ciy oo mboolem daayira yi la ko dalee ci daayira Maam jaara bi nga xam ne mooy mooy waajur daayira yi. daayira maam jaara Bambilor ñu ngi leen ciy oo daayira maam jaara kam ñu ngi leen ciy oo ak mboolem daayira maam jaara yi nekk ci tund yëpp di ci oo mboolem daayira yi nga xam tamit ñoo nekk Bambilor muy 18 daayira la ko dala ci daayira maraaxib 1 2 ba 4 daayira muxaddimaatul xidma daayira na ensemble jannati ak mboolem daayira yi nga xam ne rek ñoo bànqaso Bambilor di ci oom di ci oo ma faatixu daayira ma faatixul bisri di ci oo daayira xidmatul xadim di ci oo baabul Mustafa di ci woo daare Ahbabul Xadim Touba Akis ak mboolem daare yi nga xam ne ñoo nekk Comico ak daare yi nga xam ne ñoo nekk ci tundoo yëpp di ci oo nga xam ne ñoo féete ci tundoo di di di Mbambilor di ci oo sëñ Moustapha Mbacke Gorom di ci oo sëñ Mouhamed Mbacke Sangalkam di ci oo sëñ Moutalla Mbacke Noflaay di ci oo sëñ sëñ Mouhamed Mbacke Njaxiraat ak mboolem ñoo xam ne rek ñoo ñoo ñoo nekk ci tund woowu di fa liggéeyal Serigne Touba di o oo Serigne Omar Bousso Dène di ci oo mboolem sànqase bu ñu limee jum waaye bu ñu limee ñooñu ñu ñëpp sëriñ Abdou Karim Bousso Mbambilor ñu ngi ko cay oo moom tamit di ci oo mboolem ñi nga xam ne ay kilifa lan ci Mbambilor sur le plan administratif tamit ñu ngi ci jiital son excellence le président de a république Macky Sall ngi ko ci oo di ci oo soxnaam première dame soxna Marème Faye Sall waaye nag di ci oo l'honorable député maire de Bambilor monsieur Ndiagne Diop taxawaayam ci bés bi xam nañ ko Baye Seer Baye Seer leeral na ci léegi ñu ngi ko ci baax a baax moom la ko ca war lépp xam na ko te mu ngi koy waajal di oo le colonel Ibrahima moom it taxawaayam ci daara ji rafet lool ak ci wetu sëriñ bi ñu ngi ko ciy oo di ci oo mboolem képp koo xam ne rek kilifa nga ci dëkk bi di ci oo le ministre Omar Gueye ministre de collectivités territoriales ñu ngi ko ci oo ak mboolem ñi nga xam ne rek sur le plan administratif ñu nga fa di ci oo le monsieur le sous-préfet moom it taxawaayam rafet na lool ci CLD bi ak ci taxawaay yi ak ci engagement yi mu ci jël yëpp ñu ngi ko ci oo bu baax a baax ak di ci oo di euh, de brigade moom yi ci jël. yaatu na lool kawe na ñu ngi ko ci oo di képp koo xam ne rek si le adam sira féete nga Mbambilor ak la ko wër programme bi mu ngi tàmbali 9h ci suba incha allah bu ñu xëyee danañ wàcc ay kaamin danañ def ay durus xasida mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ ciy rendre hommage yàlla suñu borom yeesal yërmande ci ñoom te xare leen àjjana buñ ca jógee bu 13h jotee incha allah rabbi danañ dugg ci wàllu bernde berndeel jaam yàlla yi nga xam ne fa la ñuy yendu bu noppee ci mbernde bu 16h jotee incha allah dinañ def mise en place waajal cérémonie officielle bi cérémonie officielle bi bu 17h incha allah lay tàmbali bu 17h ba 21h ñu nekk cérémonie bi bu 21h jotee incha allah rabbi ñu delluwaat ci bernde yi jaam yàlla yi bu noppee ci bernde yi nag 22h jotee incha allah danañ defaat mise en place pour tàmbali guddi gi guddi gi nag ren waxtaan wi sëñ Ablaye Bisri ak sëñ Amidou Diop ñoo ko war a taxawee war a waxtaan si taxawaayu Serigne Touba ci lislaam muy waxtaan wu yaatu woo xam ne dana jël ñaari waxtu ci guddi gi la ko dalee 23h ba 1h du matin ñoom ñaar ñoo ñooy sekk waxtaan bi waxtaan la nga xam ne mooy taxawaay Serigne Touba ci lislaam buñ ca jógee it incha allahu rabbi kuréel xasida yi ak wàllum rajas mi tàmbali muy diggante 0h diggante 1h du matin ba 3h du matin. xam ne kuréel xasida yi ak rajaskat yi ñoo koy joxante buñ ca jógee nag sëriñ Adama Gom mi nga xam ne taalibeeb sëriñ bi la léppam di sëriñ Mamor nga xam ne léppam di daara ji moo war a fanaane guddi gi ak njàngum xasida ak sant Serigne Touba bés bi nag am leneen lu ci yeesaat muy guddig maam Cheikh Fall nga xam ne dañ ko daan def le trente décembre ren incha allah rabbi dañ ko indi ci le 31 décembre ah, euh, décembre fee ca Bambilor di ko ànd ak mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp waaye di ci àndal tamit suñu sëriñ bu baax bi di sëriñ bu so ñaanal ko yàlla yàlla ko fi yàlla yàggal te liggéey bi nga xamante ni si moom la naal yàlla defal ko ci lu kawe njortam di ñaanal tamit suñu baay yu ñu àndal ku ci mel ni Baye Mbacke Seck ak Baye Sayar mu yóbbaale mboole mi yëpp ñaanal tamit soxna waalo mi nga xamante ni mooy génn sëñ Mamour waaye di ci woo tamit mbokki taalibe yëpp ci Bambilor ci tund Bambilor bi yëpp di jiital ci woote yi nag daayira yi Maam Jaara Euh, mu yóbbaale daar yi si des yëpp incha allahu rabbi may woo tamit sama mbokki soxna yi di wax ne nañuy génn jàpp ci liggéey bi euh, te xam ne liggéey Serigne Touba rek moo am solo ñuy jàpp ci waañ bi ak yeesalaat dëkk baak yëpp macha allah. mbokki jullit yi jërëjëf mbokki taalibe yi jërëjëf mbokki téléspectateurs yi jàkkaarlook ñun dañu seetaan woote baa ngi noonu muy guddik sant yàlla. wala mooy bisub sant yàlla sant yonent bi waaye santaat Serigne Touba Xaadim Rasoul delloowaat ko njukkal di ci rendre hommage ki nga xamante ne bii ku ne xamoon na na taxawaayam ci alquran di Serigne Mamour Mbacke moom Cheikh Mahmadul Fadal ak Serigne Abdoulahi Mbacke yàllaay buur ak bokki taalibe yi nga xam ne ña nga woon ca Mbambilor àndoon ak Serigne Mamour bis bi waaye nag ren jii ñu duppee bis bi. tuddee ko sëriñ Abdul Karim borom makaarimul axlaax kooku nga xamante ne ku ne xam ne sun borom ci ndaw ñi la ko yebal ngir muy defar ci ñoom jikkoy makaarimul axlaax te bokk wa sallam inama boo xistule utammima makaarimul axlaax yonente bee ko waxoon sun borom wax ne ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla te ki koy def dëgg mooy borom tedd ngay jikko kon nag ñoo ngi koy séntu ci bis ba ak délégation bi nga xam ne moom lay àndal ci teewaayu mi nga xamante ni bi moom la fa sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha bàyyi mu ànd ak taalibe ñëpp nag di leen teg ci siraatal mustaqim yal nañu yàlla yàggu ci le 31 décembre ñu def ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin ku teg tànk mbambiloor yàlla nga fa jëlee la fa sëñ Tuubaa digge woon te mooy sun borom duy la ay xéwal ba nga lóor wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu